maay Cheikh Mbaye Dibosine, vice-président du stade de Mbour de l'administration Je euh, suis ancien secrétaire administratif plus de 15 ans euh, mais j'ai les obligations professionnelles moo retiré tout dans l'administration mais on est toujours au service du club au service service district au service de la ligue de toute façon on est on est là on a une expertise à la matière et on est disposé à partager son connaissance acquérir durant toutes ces années au profil des, des jeunes qui sont là, partager quoi avec la Ligue de Thiès, partager quoi avec les, les différents districts qui sont dans la Ligue. Mais moi, c'est euh, une équipe du de Mbourg. Vous n'êtes qu'à vraiment euh, donné une bonne impression, malgré les problèmes mais sans tirer ben yon ci équipe mais je crois que Fafou vous avez fait un grand travail hein, je pense que Stade je pense que euh, au niveau de Thiès ce que nous Stade de Mbour je pense que li may fàttali rek bi dem ci ligue professionnelle ah li ma waxoon ne euh, suma métit mu ngi nekk pourquoi Thiès participer wul il y a une possibilité Stade de Mbour le dossier participer ci ligue professionnelle mais je pense que loolu dafay dafay wane que dirigeant yi ñu am Mbour et en l'occurrence je féliciter tous les responsables de yi nga nañ je pense que depuis le drame ba léegi sàdd nit ñi dañuy wax lan moy seen secret mais sunu secret du dara lu dul c'est une famille une grande famille stade de Mbour dans une famille ñu am suñu solidarité hein. lenn lo xamni mo ñu permettre aussi ñu mun surpasser problème yi moy suñu sérénité nek famille hein, am sérénité je pense que lolu moo ñu permettre aujourd'hui équipe bi buy joué doko sentir l'autre jour bi ñuy son Sonacos un dirigeant dafa ñëw ne moi je suis venu de Dakar vraiment vous apporter suma soutien mais je vois que li am yépp dafa affecté l'équipe de football ma ko li am administration bi ñoo koy gérer dinañ fexe ba du impacter négativement sur le sur sur les équipes je pense que loolu moo nekk ci équipe junior bi je pense que en petite catégorie dans la région le Stade de Mbour a toujours joué le grand rôle amul année boo xam ni du ñu jël trophée départemental wala régional en petite catégorie je pense que c'est une suite logique Stade de Mbour dañuy présenté waat ñëw tey indi une bonne équipe junior yaakaar nañ ni match bi dinañ ci génn ak ndam je pense que c'est un grenier Grigné la lu en petite catégorie dans la région C'est des équipes qui ont à tout tout le temps de nous fournir des des des des bons jours et du beau jeu. Ah, maintenant par rapport à la décision la décision fédération ligue pro ak on a que di nga ci sànni quelques mots je pense que euh, le Sadembour décision bi le 15 juillet bi ñu dund moo ko je pense que les nañ ci euh, Sénégal euh, on a gagné la sympathie de tout le Sénégal euh, pour ne pas dire le monde entier Le problème va dépasser nos frontières je pense que bu demee ba cela veut dire que le problème dépasse nos frontières et je pense que ça gère avec beaucoup de lucidité hein, et de hauteur on a pris de la hauteur on est des acteurs sportifs le football va continuer à exister Le que ni football doit continuer d'exister. Euh, ñun amuñu problème ak wakam ne woon nañ bi mu ci ba le mot d'ordre mooy dañ néwon plus jamais ça dans notre pays plus jamais ça on pardonne mais on n'oubliera jamais mais on pardonne c'est lolu moy démarche Sade Mbour mais euh, ñu gis né dafa am ay ay mbir yu ci laxasu ñun amuñu problème ak wakam on est lié par le sang ay famille mbuur am na bokk wakaam wakaam am bokk mbuur mais dañu ne la démarche ni ñu ko tax a defale bugg indi wat wakaam ñu joué wakaam à six mois après di drame je pense que dañu ne en tout état d'âme Mour n'est pas prêt à recevoir Wakam Mour n'est pas prêt à jouer contre Wakam ça dañu koy jël li ma wax ne ñun Sénégal ay ay doomu aadama lañ dafa am loo xam ni moom la ñu xam teranga ñun dañu fonk dëj ci suñu communauté ba nga xam ne nit bu amee tiis ak naqar lenn li hein, li yëgul lii ñuy indi nii dafay mel ni dañu profané suñuy suñuy suñuy tomb fii ku fi sa wayjur làqu génn àdduna nga dégg ne armeel ya ñu ngi koy sulli dina am loolu yëg dafa mel ni loolu la ñu def moo tax mu metti moo tax moo créé tole bi yëpp mais on a dit que on pardonne mais on n'oublie pas mais on n'est pas disposé pour cette année à jouer contre Waka je pense que nous devons lancer un appel aux autorités Nous devons faire ce ci faut parce que euh, lu nekk mun ci am le match Mbour Waka voilà moi j'ai peur pour que loolu mu am je pense que nous devons def insister hein sur ci ay faire. je pense que Sénégal de coup, dîner, de coup, adala, am culture qui est très importante. la ñu sunu jàmm ji hein, sunu stabilité sociale kenn waru ko détruire parce que Sénégal ñoko bok ñu tok waxtaanee ko ba nga xamné wakam buy intégré le championnat dans des conditions yo xamné ay conditions yu normal lay doon club yëpp d'accord ci ñu mëna ñëwaat intégré leen té ñu japp né li am 15 juillet waratul am Sénégal état bi aussi jël ay mesures les autorités yi nga xamné ñoy organiser les compétitions la fédération la ligue mëna jël sen disposition sur le plan sécuritaire ba li ñu gis finalu 15 juillet bi nga xam ne négligence la lu mel noonu dootul amati ci réew mi. dem nu yaay une chose boo nga xam ne nag aussi bëggoon naa ci sa xalaat parce que c'est un peu compliqué euh, le fait que fédération xam nga ligue pro intégré waat US Ouakam dans le championnat et que loolu Sénégal yëpp ci wax. mel na ci laaj sa xalaat yow. waaw man sama point de vue par rapport ak li nga xam ne daanaka moo am. Euh, faire revenir at euh, wakam euh, mbertel la doon trop ca man man. dama gëm ni euh, tas c'est normal liggéeyam la def moom mooy peut-être lii la àttee euh, ni mu àttee ñun amuñu dara lañ cay luñ cay luñ cay luñ cay diingat wala luñ cay wax mais benn affaire tamit ñu nit au niveau Sénégal dafa am benn genre tradition bi fi am ñu ku nekk xam nañu géographiquement ni Sénégal tëddee donc euh, loolu ñuy wax noon tey jii man damay in damay ragal trop mu mu am problème à l'avenir ndax tamit faire revenir USO man.

man daal euh, gëm naa ne li mu wax léegi état moo war a mën a jël maintenant ses responsabilités pour au moins jéem a def euh, jéem a defar lii sinon su fekkee ne moom dugalu ci loxoom à 100 pour cent rek mën na indi ay répercussions imagine toi tey ñu ne la stade Mbour euh, Wakaam dafay dem a Mbour jouer kan moo koy arbitré ji ñan ñoo koy joué bi ñan ñoo koy seetaan même su fekkee ne dañ ne dañ koy joué en huis clos Mbour tey am na loo xam ne daanaka jàpp nañ ko pare te Mbour dafa yaatu na donc sécurité boobu ñuy wax ne mën nañ koo gaar foofu en tout cas des doy na waar mais xam nga tas bu waxé aussi ne bu ñëw ba laaj fédération ne est-ce que bu ma lever sanction bour di ngeen ko mëna a di ko mëna intégrer dans le championnat mais foofu aussi la fédération est-ce que fédération ni ko waaw mais est-ce que kooku réponse boobu vraiment aussi ça n'a pas créé de problème non est-ce que demande la man maa ngi doog dégg li nga né sax bu dé si demande la parce que kooku tout le monde l'a dit hein parce que ils ont demandé d'abord avant que ñuy génn verdict ah man lolu daanaka presque lu lu bees la ci maanaam ah, lii ngay wax ni ma demande la donc bu dee demande la tamit vraiment dina indi trop frustration au niveau du Mbour te li ñuy wax ne man gëmoon naa ni mënoon nañoo bàyyi wakaam ba déwén au moins suñ koy intégré ñu intégré ko mais ni ñu ko bëgg a intégré nii tamit à la demande de la fédération tamit ça peut amener beaucoup de problèmes ndax tamit fédération bi loo ci mën tax tamit bon ku nekk daal am nga ci benn membre boo xam ne bi tey bu nee la ñoom ñoo jël décision maintenant faire revenir at encore les wakaam au niveau du championnat ah ça peut amener des problèmes man defoon naan décision la boo xam ne bi tas boo ko jël directement rek imposé ko au niveau de la fédération ne ko lii moom mooy am mais comme nag ñu ab demande la boo xam ne nit ñi dañ cee ah, d'accord ci loolu ah bon ça peut amener vraiment pas mal de problème. Ah, c'est-à-dire que TAS moom décidé woon ne day lever sanction mais pour est-ce que dina ko mën a dina ko mën a intégrer dans le championnat CAS da leen demandé et ils ont accepté. waaw l'intégration moom man bu dee li ngay wax je crois c'était normal. mais faire revenir euh, à la compétition US Ouakam donc je crois comme lii am am na ba am na ba pare di ñaan yàlla suñu borom bi defal ñu rek ndax lu mën a indi gàllankoor la ci domaine yu bëree bëri à l'avenir mën na ci indi ay problèmes yu bëree bëree bëri yoo xam ne sax mën na sax am répercussion on niveau de doon football. le Sénégal mais dégg nga waaw ah, waaw non ça c'est naa ne lii du mberteel ci man par rapport ak euh, déclaration bu président bi mu jotee def nii ndax euh, li nga xam ne tamit lool la Sénégal di li may ragal ni loolu la ñuy loolu la ñuy ragal ba intégré Wakam moi actuellement né euh, organisation c'est des organisations mondiales donc ñom amna ay décisions suñu ko jël té rek au niveau des fédérations ça peut amener même la euh, tasse sax sa équipe nationale donc man je crois que peut être li tax gars accepté li loolu war na caa mën nek ndax on pouvait même perdre la qualification notre qualification au niveau euh, mondial hein, jox ko keneen su fekkee ñun topp ñu ci ginnaw taas li taas soxla donc li tax ñu topp ko ñu ne je crois que ni tamit yooyu man dama ragal dafa nekk ci ginnaaw moom tax ñu accepté li mais li ñu accepté du doon accepté loo xam ne tey ñun en tant que sénégalais waruñu woon accepté nekk mais comme tamit dafay am ay sanctions à l'avenir te kenn xamul lan lay doon li tax ñoom ñu nangu li man damay ragal ni peut-être sanctions yooyu même au niveau du du mondial. est-ce woon faciliter la chose demander la fédération de de euh, reprogrammer pour l'année prochaine. waaw Wakam moom non lay donc maintenant le fait de le faire revenir en compétition pour moom loolu droit am la moom dafa gëm ni moom tooñul peut-être c'est des des des supporters di ña daw foofu ñoom loolu la ñu gëm ni on moom moo nekk soo l'autre jour seen déclaration président bi sax la wax dafa maintenant comme les situation bi maintenant on va pouvoir même libérer nos jeunes qui xam vraiment ils sont ils sont dans dans les prisons donc ça veut dire que maintenant ñoom li seen considérant ñoom gëm na ni kon tooñuñu donc su fait faire fexee ñu revenir en compétition dañ naan seen droit là soo déggee sax même les euh, micro trottoir yi noo def au niveau de Dakar ak yëpp loolu dañ naan la kan ñoom droit la maintenant ñoom ñu revenir aat lii mooy yoon yoon àtte na donc nañuy sant nañ sant yàlla. sachant que aussi sur le plan technique yow amoo joueur amoo pratiquement licence licence amoo ko ko sa équipe de l'année dernière ñëpp euh, prêté nga leen donc y a personne. léegi est-ce que jar na ko vouloir jouer rek nga dajale ay n'importe qui ab ah, defar leen licence rek dem jouer ji quoi. waaw waaw mais xam nga xam nga li ma lay expliquer sànq rek wakam moom donc maintenant il faut def tous les moyens pour participer ne ne. mais ça peut les porter préjudice parce qu'ils peuvent redescendre très rapidement en Ligue 2. Oui, xam na le mercato le 15 février donc d'ici le 15 février mën naa am ñaari journée dem wala ñetti journée dem maintenant su fekkee ni ñoom seen protocole seen jour yi nga xam ne mën na doon ay prêt mën na doon je ne sais pas ñoom dama gëm ni dañ koy xaar foofu maintenant pour au moins récupérer les jours pendant mercato bi pour au moins relancer le championnat mais actuellement nii pour le démarrage ñàkkul ni peut-être ils avaient des juniors ils avaient des joueurs yoo xam ne ils étaient dans le quartier maintenant mën na leen intégrer rek pour ñu démarrer mais man li tax Wakaam jëlee fi affaire bi ni xam na ne amoon na ay joueurs yoo xam ne dañuy dem. Euh, prêté na leen je ne sais pas ndax keroog maa ngi dégg seen anti seen euh, président bi dox loolu. Ah, effectivement prêt là. waaw c'était des prêts donc ils auront le temps vraiment de récupérer à partir du 15 bi nga xam mercato de dafay maintenant pour au moins euh, aborder waat le reste du championnat.